Euh, président directeur général du groupe Walfadjri, Sidi Lamignas, président Sidi Lamignas, qui repose désormais à Léon Niassène, dans la cité de Mam Abdoulaye Niass à Kaolack Ndangaan mu nekk loo xamante ni xol yëpp dem nañ ci euh, euh, vraiment nit koo nga xamante ni c'était un c'était un donc infatigable ko xamante ni toute sa vie durant il a eu une vraie bataille Euh, pour quand même qu'il y ait une démocratie qu'il y ait justice équitable à tous mu nekk loo xamante ni tey jii xol yëpp ñu ngi koy fàttaliku moom président Sidy Lamine Niass di ko ñaanal suñu borom gën koy sotti yërmandeem ndax ku nekk xam ne ne Sénégal tey jooy nañ Sidy Lamine Niass tali bi jooy nañ Sidy Lamine Niass marché yi manifestation yi jooy nañ Sidy Lamine Niass tey jii boolu njàmbat yi nga gis yëpp ñëpp daw wuti plateforme doy na bu Y'en ak ñeneen ak ñeneen ak ñoo lànk parce que tey jii on manque d'un homme digne d'un homme boo xamante ni toute sa vie durant amul lenn lu mos sa tàyyal jël intérêt askan bi jiite ko muy président feu Sidi Lamine Niass mu nekk koo xam tey jii wax dëgg yàlla ñaari at mu dëddu xol yëpp tooy xol yëpp fees tey jii vraiment démocratie jooy na xaritam Sénégal justice jooy na xaritam mu ne te jii li nga xam te moom moo di nooteel jooy na xaritam li nga xam te moo di jaay doole jooy na xaritam muy feu Sidi Lamine Niass ñu koy ñaanal suñu borom gën a euh, ko sàmm euh, gën ko